parce que boo xoolee temps yi ñu jàll at yi jàll sax boo xoolee ci wàllu sport li nga xam moom la gën a pratiqué ci commune yu mooy football boo xoolee Gaawa doon dem de façon illégale Malcam dañ doon dem sans restituer di convoqué ay doon jàpp ñu dikk di football jadi te loolu lépp mën nañu jàpp ne ay risques yoo xamante ni la mën naa dem ba euh, andi musiba boo xamante ni mu maanaam di di di dina dina dina bëri lu mu tamit ci boo xool ci ci ci ci wàllu sport au niveau de la commune de Gawane parce que jël ay xale jël leen ay cinq kilomètres andi leen ak di leen football ba amul récidive amul dara zone bi tamit mu doon zone boo xam ne dara kon yaakaar naa ne risque la kon nag bu ñu amee tey ci woyafaayam monsieur l' inspecteur mu dikk teew fii tey pour gën noo gën noo ñaax gën noo jàngal tamit ci sport kon dañ ci am di tamit remercier madame le nga xam ci taxawaayam su ba léegi mu ngi nekk ko ñun tamit pour jàpp vraiment lu am solo merci waaw c'est bon waaw asalaamaaleykum maa ngi di nuyu bu baax di leen jaar di def seen euh, wàccuwaay man Serigne Bala tudd wax ah, ngi dëkk village bi wax Kër Jëmb Dia ñu gën ko xam teewal fi tey pour ndaje bu am solo bi nga xamante ni monsieur l'inspecteur des sports de du département de Bambey moo àndoon ak équipe am doon ko def fi tey ñu rafet ko bu baax moo am solo macha allah. donc loolu moo loolu ci ndaje bi. bon ndaje bi del fet del ak yi njëriñ la def quoi franchement kontaan nañu ci jàpp nañ ci aussi ci jox loxo bi nga xamante ni bon gars yi bëgg nañu ko jox loxo pour ñu génn ci secteur informel bi nga xamante zone bu gawan don na ci don na ci don na ci yengutu ay at la bobu léegi ñu xamni ni ay risque ak ay yo xamanteni presque amul ben fini finition quoi kon comme fi ñu jëwee motax tax ñu rafetlu jotaay bi vraiment am na solo bobu day ci wax wax ci ngeen nekkon kon paré ngeen pour delu ci formal bien sûr bien sûr ak beaucoup d'engagement bo xamanteni am nañ ko mais aussi ASC e yi nga xamanteni engagement engagé ci même aussi lañ aussi dañuy ànd ak ñun di liggéey ay engagement aussi joxe na ci je pense que dana ko dana ko tenir ak aussi euh, waa département bi nga xam aussi ñu tamit def nañ ay engagement yoo xam ne ñu ñu ñu leen di remercier te yaakaar naa ni incha allah dana ci dana am njëriñ si baax waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di tey ñoo ngi fi fekk ci laaj di nuyu madame di leen nuyu tous les jeunes si Kawa ci réunion bi nga xam ne tey fatta sono ci kontaan bu baax ci xam-xam vraiment ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci kanam seen vraiment day am benn ndax day am yoo xam ne ñoo koy taataan moom lañ ko mën a jàllale kon tey bu ñëwee ba fekk ñu rek vraiment tey ba dinañ ci am kontaan bu baax ndax tey ñu ngi nekk commission CNES ci mairie bi bi nga xam ne tey fi la ñuy defee orientation secrétariat dégg nga ndaw yi aussi wax lu ëpp problème stade en tant que aussi nga ci mairie si yow. waaw ñu ngi ci nag wax dëgg yàlla ci def ay ay démarches ndax tey di bañ ko xam ne ñu ngi def nañu ay analyse jàpp nañu foo xamante ne xalaat nañ ne mën nañ faa am stade euh, municipal mais comme euh, ni ñu ko wax rek xëy na suñu commune euh, ak yeneeni commune par rapport xëy na am na nu muy xaw di wute ci côté budget ndax tey vraiment stade municipal stade bu régal ni dafa nekk loo xam ne budget bu mag moo koy def kon tey njaay en tant que sport bu fi ñëwee tey yaakaar nañu mu gën a jàppale madame le maire ndax tey lépp lu Sénégal di bokk rek bu ko yoree dina ko def waaye nag day am loo xamante ne day nekk ay priorité yoo xamante ne tey nag mënul ñàkk loolu daal la mais vraiment euh, stade municipal tout à ñu ngi koy sooraale pour jàpp naa incha allah ñoo ngi ñaan yàlla balaa suñu mandat jeex ñu teg ko ci loxoy Sénégal vraiment ñu ngi kon mu ngi ci jéego yi parce que ci ci ci wàllu la promoteur da nga yëngu ci làmb fii fii la mooy jafe-jafe waaw fii nag vraiment wax dëgg yàlla làmb bu ñu fi teg euh, promoteur def naa ko ci moom teg ndax maa ngi déparé woon di appuyer école yi yëpp saa yi damay teg benn làmb rek recette ba ca am ma jagleel ko euh, école bi groupe para de élèves bi wala collège mais vraiment lamb mom fi touti jafé jafé mo ci amoon rek xeyna man dama jël def samay règlement am am carte promoteur dal ko à niveau national mais mujj ci dem na bo ma jappé bes bés yépp dañ lay to ñoo ñu jaar ñu en règlement to yow tout man damay jaar ci biir règlement yi bu budget bi day dem bu dootuma attendre budget bi ndax daf fi bari to ñi koy def yépp yëpp teguñ ko ci règlement loolu taxul ñu xaw a gi suñu sax mais mosuma am lamb bu toj ci gaaw waaw teg naa reefal lamb it mosuma am lamb bu toj teg naa lambaay lamb ñu ne at ma ca maam yi ya lañ gëj a teg fii lamb boobu dafa Moussa Ndiaye mi nekk taekwondo moo ñëw ni def ci la at waaw xëy na lu mel ni stade bi moo ci gën a nekk suñuy jafe-jafe baas yi nga xam ne ñoo nga ko war a couverture day am jafe-jafe du neex am sécurité daal merci beaucoup dëkk Kër Allé Ba teewal bi ASC USCA ànd ak sama président Moustapha Dieng mu nekk capitaine bi ñu ngi rafetlu bu baax ndaje bi am na solo ndax dafa mel ni dañoo fekkoon ñuy nelaw ñu ñëw ko dugg ñëw li passé dafay mel ni loolu bokkuloon ci benn activité zéro la mais fi mu nekk nii yee nañ selon engagement yi ñu fi gis

loolu lu am solo maa ngi ziare ñëpp kon pare ngeen fi nekk nii ngir sóobuwaat nawetaan yi waaw ay licence normal rayflewaat par exemple pare nañ ci baax a baax a baax te buñ ci jógee bëgg nañ aussi ku nekk jiim cee waxtaan aussi ak sa waa ASC e. mhm. jiim leen ci sensibiliser parce que tamit ñu ci bëri ñu ñàkk intéressé wu peut-être information wala aussi ni ñu leen di mën a sensibiliser ba ñu mën a intéressé wu ci mbir mi mhm. loolu mooy nekk euh, défaut bi parfois waaw waxtaan bi du am péccoo bi du am te nit bu amul dara bu amul benn xam-xam wala benn idée ci liñ liñ ko bëgg a dugal xëy na pour nga dugal ko ci day nekk jafe-jafe ba mhm. foog nga jàllal information bi ci moom ba mu xam lii li lan mooy njëriñ bi bi ba mu mën ci intéressé loolu mooy solo si ñaxtu bi def bëri na lépp te ñu ngi li ñuy laaj moom mooy exact waaw moo yaakaar nag pour moo noonu la question bi seet ko ci tool mhm. waaw salaamaaleykum mu doon a ñàkk Eh, waaw waaw mënul eh, eh. euh, ñàkk maa ngi rafetlu bu baax a baax tey seen ñëw bi ci gaawa di sant nag ndax euh, comme ni nga ko waxee mel ni dañu doon neexoon ñu fëgg leen ñu leen jóg loolu am na parce que lu bari bari ci ak euh, sensibilisation daf cee xaw a man wax dëgg ci indoon dox mi su su ma demee war a sonn boo bëgg a nekk laay jàpp ndax euh, këyit yi du tegu ci yoon boo demee trésor toujours dañ lay rejeté waat mandat yi fu nekk laay jàpp pour mu mën a génn ab naa fi ba taay euh, récépissé ngaraas récépissé kër baaba fu nekk jaar naa fa génn ko jël ko pour mën cee génne xaalis mais toujours du tegu ci yoon euh, coow rek lañ ciy mujjee bis bu yàlla sax kon lii bu amee lu may ñaan rek mooy date bi ñu jox xale nañ fexé fexé rek ba ku nek ku dëkk bu nek na fexé daal dem taxaw pour légui nga am kay nañ jaar procédure normal pour am kay légui état bi lu ko tabé am nay tama madame Cissé madame Mbaye ku nekk woo ka ma ni ma dangaa am priorité léegi délibéré xam nga stade bi bala muy ñëw da ngay délibéré mais délibération bi ma am ci problème ndax jëm ci affaire titre foncier li ci ëpp doole la ñuy wax foo jaar ñu ne moment foo jaar ñeneen ñi taxaw di xaar ku laal seen tool mu doon coow te xam nga itam fii dëkku sëriñ la mm. dëkku mbàkke mbàkke la commune gaawaan li ëpp ay mbàkke mbàkke mm. ay daara ñoo fi nekk mm. tey dongo yi ñëppay football ñëpp bëgg football mais pour nga dem ci sëriñ bi euh, ne ko damaa bëgg fu xale yi football jafe na <laughs> may négocier nak di waxtan waye dama def ni tay ndaje bi tay ak ni mu def bu ñu àndandoo ñu gis tay ni nga xamni non la xalé jëm jóg dox leen fu ñu mën def seen fu mo def clôture bu jëkk itam yëngatu yëngatu sax cee amul woon gis ñu ko koy def dañuy dem bu nawet amé da nga gis dëkk yi fu nekk waye da fay mm-hmm. joggé dongay ñoy jitu ñëpp équipe bi sax ay donga da cee am du ñu ñemee sëriñ bi yëpp du ñëmé ci sëriñ bi ni ko fu yi footballé wala fu gone yi làmb xam nga ñemewuñu ko waaye nag kuréel gii bu fekkee ni kuréel gi dafa tax te compétence transfert xam nañ ne tamit ni maire bi daf ci am wàll bi daf ci am loxo su ko defee ñun dinañ am pour xam na nuy waxee ak sëriñ bi waaye bu njëkk nag fu nekk dafa waaye dafa tasaaroo waaye nag léegi lii dina nu ñaax ba tax ñu mën a dem ci sëriñ bi expliquer ko du dina jaar sax ma dajale leen mm-hmm. ñu dem seeti xalif bi parce que bu ñu demee seeti xalif bi bu ko defee dina yomb mm-hmm. ñu am fu ñu féetale mm-hmm. bu ko defee ñu man koo délibéré mm-hmm. mën ko viré loolu daal taxaw nañ ci ñun conseil municipal pour mën a xale yi mën a am même yeneen dëkk yi sax damay def appel bu ñu mën a am ci beneen dëkk itam ñu fexe rek waaye wax dëgg am naa priorité ba taay waaye dama ko mujj perte waaw jërëjëf kontaan naa loolu nag tey subvention aussi yaakaar naa ne bu fekkee ne xale yi par nañ pour delluwaat si nawetaan yi subvention yi aussi Euh, disponible na pour ñu. disponible na subvention moom fi mu nekk mi ngi fi kenn la moom kay xanaa léeg-léeg jafe rek mhm. balaa ma ci commencé nag moom dama koy wax ja ndax di waaj moom mooy bala muy génn nga sonn daj du nekk mhm. parce que doo am kay te mhm. trésor ñëpp xam xaalis sa caaxaan génn boo fa demee moom balaa muy génn di nga sonn loolu rek la bàyyi subvention nawetaan ren mu ngi fi buñ fi xanaa ngeen jàppale leen rek ñu organiser wu. ba seet li ñu def ba génne. incha nga xam a a jouer. léegi loolu vraiment ban taxawoo ci war a am ñu def ñu assurer ay formation ñu mën a a mu a naa ci moom bu ñu defee commencé nawetaas dañuy ñëw ni ma ñii ñu tànn pour ñu arbitrer duñu ko nangu duñu nangu kii dañuy jékki-jékki beneen gox bee taxaw ni kii ñuy arbitrer ñee taxaw ni kii ñuy arbitrer xam nga kon su fekkoon ni légalement rek teg nañu ñu xam ni kii yoona ko fi teg kenn du bañ waaye dañuy taxaw ku nekk dem gàddu nitam di ki taxaw ni kii arbitre lay doon ba dañuy mujj dem jël waalo kenn dem jëli ngaraan dem jël fee boole jaxase bu la jaxasee leen bii mooy arbitre bi tey bu kii arbitre tey bu ñaar ñi boo lëkkee ñee ñaar lu nekk laay waaye dañuy bañ ñama du ci daw euh, léegi loolu boo seetloo lu arbitre taxawal ci terrain bi foofu la ko histoire bi commencé duñu ko nangu ndax dëkk bee la ah, bopp ñee la faral duñu ko nangu loolu nekk na loo xam ne te xam naan ñàkk xam gi moom foofu la gën a màcc wàllu arbitre yi moom li muy dogal moom loolu moom mooy problème at naa ko ba sonn waaw

Euh, nous avons aussi tous les acteurs du milieu comme nous avons des nous nous bu ñu donc étudier les de euh, par rapport à la situation sportive du milieu après nous perspective donc pour au moins quelque chose de formel pour développer le sport de manière générale. donc euh, ndaje bi dégg nga waxtaan bi donc lan nga fi mën a jàpp lu gën a fees loo xam ne euh, laaj na jooy bi macha allah waxtaan dégg nañ ko xam nga Matar comme ni ko waxee rek fii la ñu fekk ci dara. et mm-hmm. ça se comprend quand il fekk fekk dara formé moo tax may wax. et ñoom it ñu nangu ko xam nga li leen métti mooy nit ñoom ils sont reconnu que donc euh, la formalisation de toutes les structures mm-hmm. nekk nii incha allah

donc autorités yi jàpp nañu ci donc mu nekk nouvelle création permettre jigéen par rapport ak stade bi sànq di gën bi naa laa ma ci interpellé te loolu nañu def nañu def suñu kéem kattan man je pense que bi euh, ñàkk terrain bi lu ko waral aussi mooy euh, dox bi ñuy dox de manière xam aussi kilifa boo nekkee kilifa moom déjà moom sax en commençant par moom. boo gisee xale yi yëngu ci xam ne wax dëgg yàlla amul benn encadrement amul benn loo xam ne ko formalisé da ngay a ragal mhm. te mën na ci ay jéem moo tax je pense que ñu ñun dañuy xaw a ragal loolu mais bu ñu ko formaliser euh, teg ko ci yoon xale yi encadré ko ba ñoom kilifa yi ñu xam ne kat lii de wax dëgg yàlla yokkute na donc euh, je pense que mën nañu mën nañu jàppale donc ñu accompagner ñu dañu ay terrain ba pourquoi pas stade boo xam ne dañ ci mën a kii parce que à Touba boo xam ne Touba la taekwondo Touba mën naa wax c'est la seule discipline boo xam ne Touba dañ ko fay pratiquer mm-hmm. et pourtant si ñu mën utilisation bi parce que bu mu ñëwee bu njëkk dafa sëñ dafa laaj xaw ma kenn la woon ci ñoom mais am na ku laaj moom mu ne moom xale yi ñuy def lan la ñu ne karaté mu ne ah ah du caaxaan dañuy caaxaan la waaye mën na facile développement dëkk. bu ñu ko expliqué vraiment vertu te sport bi dafa ne quatre ne tey ko doon bu nekkee biir Touba. yaakaar naa ne donc discipline yu bëri war a nekk fii ci biir Gawane. également stade bi ñu ci jàppale mu tudd yu baax. yoo xam ne fan la ñu ko ànd. ne kan nañu ci waxtaan ak madame le maire donc organisé wu. donc jéem a leen ci yokk nag. lamb ji. Mhm. yu noonu quoi parce que yooyu tamit na ko wax. c' bien c' bien quoi ñoom ñu bañ activité mais je pense que bu nekkee da nekk en en règle ñu ko sekkal lépp ci en règle ñuy posé de de de donc ce qui fait que ñoom à leur niveau ñu dem encadré mhm. donc à ça donc di sant ma di sant donc mhm. di sant également euh, waa di sant également waa ODCAV di sant dama équipement daal di sant nag di benn cant nag madame Birame Mbène vraiment mu nekk oyof noonu amul solo ndax loolu maa ko def man naa ne woon bu yàgg far nañu xaw a xaw a dégoté donc di leen sant bu baax en tout cas bëgg nañ nag nga jëlee ñaari formation parce que bëgg nañ commune bu nekk nga jël moins deux formations en charge yi moo xam ci arbitrage moo xam ci coaching la moo xam ci waaw dinaa ñaari formation a allah waaw ngeen ngeen jàpp ci incha allah donc di sant ñëpp. prochaine sortie prochaine sortie waaw incha allah prochaine sortie ñu ngi waajal euh, Fatick daal kër kër kër Samba Kër Samba Kër incha allah. yoon yi métti na mais xam naa ne boo jàppee mos a lu yomb nag. Hmm. mais yaay am sa fulla ak fayda ak man. ak nangoo déglu nit ñi ñu jàppale la. Belum tiap sama banyak. Insyaallah. Cuma cuma mungkin sama mungkin lambat lambat lambat lambat lambat lambat.